الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عليه الصلاه والسلام عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلام عليه وعلى اله واصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل لقد أمر الله عباده بها فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mbokk ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy rëcc rëcc bàkkaar ñu ngi seede ne moom yàlla kese mooy kii jubalaate te képp ku mu teg ci yoonu hidaaya kooku texe na yàlla nañ ci yàlla boole waaye képp ku mu seetaan moom allahu subhanahu wa taala ci maandu teem ba nga réer sànku xamul kenn ku la mën a jubalaat yàlla nañ yàlla teg ci yoonu siratul mustaqim ñuy seede ne amul kenn ku war a jaamu ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te ñeelul ñu koy bokkaale kenn moom yàlla mi wéet ci kennam gi jurul kenn te kenn juru ko yom yàlla mi nekkul naw la ci kenn ñuy seede ni suñu sang muhammad alayhi salaatu wasalaam jaamam la ndawam la xaritam la tànneefam la yàlla ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku ko topp ci njubam di rafetal booba bis penc di taxaw mbokk yi ñu dénkaat suñu bopp dina dénk ragal yàlla subhanahu wa taala nim ñu ko digale ci alquranul karim yàlla mu ne ay yéen ñi gëm na ngeen ragal yàlla dëgg-dëgg ragal dikk nag bu leen faat mukk lu dul na ngeen dooni jullit moom yàlla du ñu dénkaat ba tey ni ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal man mii di seen boroom te ngeen di wax wax ju rafet wax ju baax wax ju jub wax juy defar ndax loolu mooy liy yéwanal seen i mbir seenum nekkin mooy taxit borom bi subhanahu wa taala jéggal leen seen di bàkkaar képp ku bëgg woowulee yiw nag na nga taxawee ci jëfe li yàlla digle ak li nga xam te mooy digle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day hadisam mbokk yi moom yàlla subhanahu wa taala dafa bàkk ci biir alquranul karim ñenn ci jaamam yi ñooñu yàlla bàkk tagg leen ñooñu ñooy almuminuun mooy ñi nga xamante ni danoo dugg ci islam ba pare gëm yàlla yàlla di leen melal ay melokaan ci alquraanul karim doy na rek mu doon ak bàkk ak sharaf ci ki nga xamante ni bokk na ci ñooñu yàlla tuddee almumin ni yàlla da cee wàccee saaru lëmm tuddee ko suuratul muminuun mbokk yi yàlla moom subhanahu wa taala moo ñu wax ci alquraan mu ni man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mumin falanuhyiyannahu hayatun tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yamaluun buur yàlla mu ni képp koo xamante ni jëf nga jëf ju sell moo xam góor nga moo xam jigéen nga fekk yow nga nekk aji gëm mu'min yàlla mu ni dina la dundal dund gu teey fii ci kaw suuf te yowmal qiyaamati tamit jëf ju sell koo ko doon jëf ngir man boo ñëwee dina la fay lu kawe sa njort yàlla ñu ci yàlla boole yàlla di wax ni ba tey alladina amanu ñooñ ñi nga xamante ni ñooy ñi gëm wa lam yalbasu imaanuhum bi dulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun ñi nga xamante ni ñooy way gëm te seen gëm googu njaruñu ko boolewuñ ci lenn loo xamante ni ak mooy yàlla la yàlla mu ne ñooñ dañoo ñi nga xamante ni fii ci kaw suuf dañ ciy am ak dal te dama leen teg ci yoon bi nga xamante ni mooy yu yoonu yoonu hidaaya mu yoonu jub mbokk yi lii di al iman muy gëm dafay jaari ci jullit bi nga xamal ko lan mooy gëm ndax dafa am ñoo xamante ni dañoo jóge woon ca kaw ga bu nga ko mën a tudde noonu ñëw fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko aman na ñun de gëm nañ yàlla addoo ci asamaan ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulu al imanu fi qulubi kon yàlla tekkale na lii di jébbalu ak gëm yàlla ni ñooñu wax ni dañoo gëm wax leen ni dañoo jébbalu si waaye gëmaguñ lu dul ne nag gëm gi dafa dem ba tàbbi seen biir xol te ponk imaan jibril alayhi salaam moo wàcc jàngal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni yonent bi xibaar ma lan muy gëm yonent bi ni ko gëm de mooy da gëm yàlla ci melokaanam yi ak i turam yépp nag gëmit yonent yi laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli amul kenn ku ñuy gëm ci yonent yi bàyyi keneen ka ci des nga gëmit malaaka yi gëm ni yàlla am na ay malaaka yoo xamante ni laa yaasuunahu duñ ko mooy mukk te lum leen digal loolu la ñuy def gëmit ni yàlla moo wàccee téere asamaan yi amul benn boo ci war a gëm ci tawraat injil zabur ba ci furqaan di bàyyi benn ba ci des wante bi ñuy àttewoo nii mooy alquranul karim yonent yàlla isa yàlla mu ne wa ma qataluhu ma salabu kenn rayu ko kenn fandru ko yàlla moo ko yëkkati waaye dafa bokk ci alaamatu saa yi mandarga yi bis penc yi mooy day wàccaat ci kaw suuf waaye bu wàccee ci kaw suuf mbokk yi du attewoo ci téere bi ko yàlla wàccoon ci moom ci alquran lay attewoo nga gëm ni kon yàlla moo wàccee ak kutubu samaniya nga gëmit lii di bis penc bis bi nga xamante ni yàlla ci lay dekkal ñépp kenn du manqué wa uridu ala rabbika saffan laqad jittumuna kama xalaqnakum awwala marra kenn du manqué nga gis nga gëm bis boobu nga gëmit dogal yi moo xam dogal yu neex yi wala dogal yu naqar yi bi jibril daane bi yoon saa salaam daanelee ci hadis bi jibril ni ko saddaqta wax nga dëgg kon jibril moo wàcc moom jàngal yonente bi salaa salaam nii di ponk imaan yi muy juróom benn moo tax yàlla ni waxal ñooñu kon gëmaguñu waaye dañoo dugg ci ci biir islaam lu dul ne nag bu demee ba iman gi dugg ci seen biir xol ci lañ leen di boo soog a woowee al mu'min mbokk yi lii di al mu'min nag li koy mandargaal ci nit ki mooy al iman qawlan wa amalan mooy li nga wax da koo gëm say kaddu da koy mandargaal lépp looy wax rek ak jiw lay doon wante it say jëf da koy mandargaal say jëf yépp jëfi lu yàlla digle la ak lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle kon lii di iman li koy mandargaal ci doomu aadama yi mooy ay waxam ak ay jëfam moo tax borom bi subhanahu wa taala ci saar bi nga xamante ne moom lu dippee al muminuun yàlla da ciy wax sifaat yi seeni melokaan ñoom jullit ñi ñi nga xamante ne ci biir jullit ñi ñoom la ñu woowee way gëm ñi ay jullit dëgg ñooñu ñan la yàlla mu ne baada audu billahi min ashaytan rajim bismillah rahman rahim qad aflaha yàlla li mu tëggee saar bi mooy texet yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu mbokk yi mu ne qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashicuun walladina hum an illahwi mucriduun walladina hum lilzakati faaciluun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون yàlla yàlla boole si ñooñu mbokk yi yàlla ci juróom benn aaya yi ci suuratul muminuun Omar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu nee na dañoo dégg saa yi gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni dégg ci jamonoy sedd muy ñaq ñu ni kon de wax yu mooy wàcc ci moom Jibril mooy wax ak moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi wax jóge jeexee mu ni saxaaba yi jibril moo doon wax ak man di ma wax melokaani jullit ñi way gëm ñi ñi nga xamante ni yàlla nee na ñoom dañoo texe te li leen di yàlla dencal ëllëg yowm alqiyam mooy jannatul firdawsil ala yàlla ci yàlla boole mu ni ñooy ñen la mu ni alladina hum fi salaatihim xaashicuun kon lam ca njëkk a tudd mooy alxushuucu fi salaat mooy toroxlu si bu nuy julli mu ni almumin bu nee allahu akbar di julli lépp luy àdduna féete na ko ginnaaw kenn rek lay gis mooy allah subhanahu wa taala mi jàkkaarloo ak moom te dara dara dara dara doxul sa diggante ak yàlla nee na nga jël sam xel def ko ni yonent bi salaa sallam defoon ba ko yàlla rañaanee ma zaaga al basaru wa ma taxa sa gis ak sa dëgg yépp lépp da nga koy fixé ci nga jàkkoo mooy allah subhanahu wa taala nee na kooku moom la ñuy tuddee al mu'min bokk na cay sifaatam cay melokaanam boo xoolee contrairement ak ki nga xamante ni naafiq la moom ab jullit la bu fekkente ni nifaaqam yóbbu ko yóbbewu ko mu génn ci diine islam mooy ak nifaaqul intiqaad yi waaye naafiq la ndax ci sifaatul naafiq yi am na yu nekk ci moom kooku yàlla mu ngi koy melal ni mooy ñi nga xamante ni bu ñuy julli seen julli qaamu kusaala dañuy tayal boo leen xoolee dañuy da nga yaakaar ni kii sax day foofu julliwul ci taxawaay ba ca melokaan ba ci lépp mu mel ni ku jàkkaarloowul ak borom subhanahu wa taala contrairement ak bu jàkkaarloowoon nitu àdduna cër ba mu koy jox ca la muy sol ca na muy tax taxawee ci kanamam ba jox ko cër goo xamante ni da cëru kilifa allah subhanahu wa taala mbokk yi mooy ki ñu sàkk dafa yellu ci moom ak melokaan goo xamante ni melokaan bu yiw la moo tax yàlla digle ne bu ñuy dem di julli ji nañu sañse jullit buy dem di julli ji moo xam ca jàkka ja moo xam sa kër la na nga sol col ko goo xamante ni col ko bu bu civilisé koy nekk bu yiw lay nekk boo ne allahu akbar nag lépp li àdduna nga féetale ginnaaw nga jàppale sa borom subhanahu wa taala aqul ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بوكي بتي سني تخواي نيارل borom bi subhanahu wa taala moo ñuy melal ci suuratul muminuun lan mooy melokaanu jullit dëgg-dëgg jullit ginnaaw bi mu ci njëkk a wax mooy ñi nga xamante ne dañuy toroxlu suñuy julli ñaareel bi mu ci teg mooy al iraadu an il lagwi mooy ñi nga xamante ni lépp luy caaxaan dañ koy wan ginnaaw nee na ba pare nag maandu ca nag fu ñu fekkee ay caaxaan duñ ci wax lu ñaaw waaye marru kiraama dañuy romb romb gu rafet ñooñu mooy ñi nga xamante ni ab caaxaan muy ay fiir yoo xamante ni iblis moo ko sànn ci àdduna mu wër ñu nag nga mën a koo xool sax di ko rafetal naan lii de dara nekku ci ala sabili misaal ci jamono ji ñu toll ñu ngi wax coupe d'Afrique buñ ci paree yaa ngi dem ci coupe du monde yaa ngi dem ci ay olympique lépp mbokk yi mënoo koo dugal ci lu dul laxwun laibun wa laxwun fi ab jullit di toll ci jamono ji ngir natt ngërëm ngëmam fii la mooy li ngay seetaan nii xam nga ni bul la waxoon teg ko ci balance su sharia yi foo koy teg doo ko teg ci alfard wala sunna wala mustahab wala mubax doo ko teg ci foofu benn ci àdduna nga koy teg nga fekk match boo xamante ne mooy match bi gën a rëy nag waxtu julli jot foofu ngay nattee sa ngëm fa wax fañ ne xayya ala solaa muy rendez-vous boo xamante ne sa borom moo la ci woo nga ne fa ñëpp lépp luy àdduna dëgmal sa borom loolu moom kenn du fa nekk naan la gëm nga wala gëmuloo ndax foofu yow ak yàlla kese la sa connexion diggante sa borom nga bàyyi fa lépp dem nga jàkkaarloog julli ga mbokk yi nattukaayu jullit ci ngëmam ci jamono yi ñu toll bokk na ci lu événement rëy rëy rëy rëy rëy mënul gën a rëy ci jullit yàlla wala rendez-vous nga war a jàkkaarloo moom moo tax yàlla mu ne ñii nga xamante ni ñoom bu ñu fekkee ak caaxaan dañ koy romb waxuma la ak circonstance fekk la te nag nga toog defoo dara yaa ngi suivre match waaye lii di farata taxaw nga ne ko fa ñëpp ku dem wuy di sa borom subhanahu wa taala ci rendez-vous bi nga xamante ni yow ak moom la moo tax yàlla boole ko ci ñaareelu melokaanu jullit ñi mooy ñi nga xamante ni bu rombee ak caaxaan dañ koy won ginnaaw ñetteel bi ci ba tey melokaan bi borom bi subhanahu wa taala di melal ñii di way gëm yi mooy ñi nga xamante ni dañuy laabal seen bakkan ci seenu alal alal mbokk yi dafa bokk ci li sax ci xol moo tax nit ki buy génne alal daggatu bokk na ci daggatu xolam buy génne di ko joxe am na yoo xamante ne pour ñoom zakat bi ñuy génne ci seenu alal day wàññi seenu alal te fekk ne loolu day laabal sa alal ba pare di defaraat sa pas-pas di wane ne yow mi ab jullit nga beneen bi nga xamante ni moom la ci borom bi subhanahu wa taala teg ci melokaanu jullit ni mooy xibzul farji min al haram mooy ñi nga xamante ni seenu awra dañ koy wattu ba duñ ci séq lu dul ak seen soxna wala bu dee jigéen ak borom këram fi jamono toll na moom ataaloo la moom daanaka bu ñuy wax sax célibataire gu bari gi mooy lépp a yomb léegi mu ngi ci marché bi te mbokk yi dafay xaraam sax ci jullit boo xamante ne yow boo amee soxna du tax nga yem ci moom dafay xaraam nga takk soxna dafay xaraam ci yow nga takk soxna moo tax islam indi la ay échelle ni la mën ngaa takk benn ñaar ñett ba ñeent léegi romb nañ ci xuduud yi nee nañ kii dañ koo seexal mu am bu juróom kooku njaaloo la xadd bi ñeent la yàlla moo ko lim mais yow mi nga xamante ni mënoo takk benn di ci yam dafay xaram ci yow nga takk soxna demal nga defaraat sa jikko sa pas-pas ngir nga doon dëgg-dëgg jullit nga soog a denc ci soxna ndax bàkkaar bu rëy bàkkaar bu tuuti moo ko tane donte benn baaxu ci nag ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko rañaanee muy dem jëli ji lii di julli ba mu demee dañ koo won koo xamante ni dañ koo dafa tiim ndawal bu ñu defar ba mu baax ak ndawal bu nëpp mu bàyyi fa ndawal gi baax gi misu bi ba ba ko nii tiim ci ndawal bu nëpp bi di ko lekk alayhi salaatu wasalaam ne jibril waa kii lan mooy xaalam kii situation bi nekk nii lan moo ko ci yóbbu nu ko kii ci sa xeet mooy ñi nga xamante ni dañuy am lu leen dagan lool muy seen soxna ñu bàyyi ko fa di dem di defi neneen neneen lu noonu mu ne ñooñu mooy ñi nga xamante ni ëllëg yowmal qiyaam ñi leen yàlla di fay mooy mbugal mi yàlla ñu ci yàlla musal mbokk yi yàlla suñu bon faakaaram ni waxaat ba tey ci jikkoy ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax al muminuun mooy xizul amaana wal wafaa bil uhud mooy ñi nga xamee ni boo leen confier dara mooy xam ay wax la wala alal soo ñëwee bu dee alal la fa nga ko defoon ca na nga ko defoon boo ñëwee noonu la ñu koy delloowaatee bu dee lu jëm ci compte bancaire la na nga ko wàññee woon jox la ko noonu lañ koy wàññiwaatee génne ko jox la ko ba mu mat bu dee ay wax la soo ko waxaatu ñoom duñ ko wax léegi nag moom fii ngay wax léegi ak sëñ bi génn mu dem ni yow moom lii moom ma li yow dong laa ko wax ndax da ngaa sës ci man subhanallah nga génn moom mu dem ci keneen fu mu sët ci moom da ngay jekki saay rek wax di wëlbati ko waat balaa 24 heures ñëwaat ci yow yàlla mu ne kooku noonu du ab jullit jullit mooy koo xamante ne boo ko dénkee moo xam ay wax la wala alal la mu téyel la ko ba tey bokkul ak ki nga xamante ni al ahd maanaam lii dañ koo signé muy benn pacte boo xamante dañ koo signé ni nii la ñu wàndandoo war a war koo def kon lu ñuy wax al muslimuna ala shurutihim wante moom mu bàyyi ba ñu signé pacte ba pare mu def neneen kooku ba tey dafay bokk ci ñi nga xamante ne ay jullit lañ leen askanale waaye naafiq moom moo nekk ci seen ñoom ci ñoom mbokk yi bari na la borom subhanahu wa taala wax ci al muminuun waaye fi mu ko jeexale mooy ñi nga xamante ne ñoom bu julli jotee lépp lu ñu mën a jàpp dañ koy bàyyi kon lim digle woon ci tàmbalim ci aaya bi loolu la ko tëjee ci fin bi mooy ñi nga xamante ni suñu wootee julli la ñu dem yonente bi sallallahu alayhi wasallam nettal na ci xadis mu ni dafa bokk ci melokaanu ab jullit mu ni koo xamante ni ci ñett yi mu wax ba mu ci njëkk a julli ba mu ci njëkk a jukki mooy ñi nga xamante ni julli dañ koy wattu ci saay bu ne hayya ala salaa ñu dem wuy ji ci julli ga ci xadis boo xamante ni Muaz nettali na ko radiallahu anhu mbokk yi ñu ngi dénkaat suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala di ko ñaan mu boole ñu ci ñi nga xamante ni ñooy dëgg-dëgg jullit ñi ñi nga xamante ni ëllëg yowmal qiyaamati yàlla mu ni ñooy ñii donn aljannatul firdaws al aala mooy aljanna ji nga xamante ne la ko féete kaw moom mooy arshullah mooy ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nekk rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله